ñu woo beneen humoriste moom tamit mu ñëw daal di wane boppam dootuñu ko présenté euh, min na li nga xam ni moom mooy Aba Show min na wan Man Show miin na seen yi gën a mag a mag a fii ci biir réew mi ak Afrique sax laay wax Willy du Wadianga tàccu leen Willy bu baax. salaamaaleykum. na ngeen def euh, man dama dégg ñuy expliquer ay situation yoo xamante ne xamuñu ko. te loolooy in incompréhension man dam leen di expliquer man kam kam kamantaawun laa moom du leen nëbb dara te ku nekk kamantaawun rek na gore yi yëkkati loxoom ana kama ah ay ay ndeysaan nit da ngay sa bopp man maa ngi jógee suñu village di ñëw Dakar ñëw laajte apprenti bi fii Kolda ak Dakar ñaata la mun ne ma 6000 la ma ne ko d'accord 6000 d'accord ma ma ma yéeg toog maa yéeg toog oto bi daw ba Padoua wàccee ñu maa ngi xool étage yi naan xam nga Dakar dafa rafet jékki-jékki dégg beneen kaar naan Dakar Dakar Dakar ma daw songu apprenti bi xeex naan ko yow lu tax nga may wàccee Dakar xeex ak moom xeex gu metti ba barki yàlla maa xeex ak moom xeex gu metti ba ñi ñëw wër ñu di ñu hmm. ñu ne ma lan la ma ne ko lan moo tax mu may wàccee fii man Dakar laa jëm et eh, gars yi dama leen di wax de boobu mooy sama première incompréhension ak Dakar maa ngi wax sama deuxième incompréhension ak ak Dakar dafa simple mooy ni que dama xeex foofu ba pare ñu ne ma dangay ngay yéeg bus pour dem Dakar Dakar mooy ville non dëgg dëgg la xaw ma ko maa yéeg ci bus bi maa yéeg ci bus bi di dem dakaar man xam nga nit boo nekkee fenn boo voyagé bàyyil di fa jëlee ay affaire ñëw di nettali loo xamul man yàgg nañ ma wax nii waa Dakar dañoo soof bëgg ay affaire ma ne d'accord man yii yéeg naa ci bus bi toog ñun suñu village dañoo tàmm bu ñuy wax bu ñu yéegee ci oto rek dañuy laaj paas ma yéeg ci bus bi kenn laaju paas sama xel dem ca lañ ma waxoon ma toog ma tamit fas sama kanam am fu la maa jékki-jékki oto bi daw lu bari am kenn ku yéeg ci biir di ci ay ticket mu ñëw ba ci man ne ma ah, ah, ah ana sa ticket ma ne ko ticket lan mu ne ma ah da ngay jéem a burle ma ne ko ana lampe fii ah ah non gars yi lu mu leen wax ni du saa rek ñax xam mooy def loolu mooy incompréhension ci laa keroog laa dem ci laa raxas bus raxas douche raxas naa lu ne. ma jógee fa dem sama kër Bijaay bi ma doon dem ñu won ma adresse bi ma yegg ba ci bunt bi ndeysaan maa yegg ñun suñu village xamuñu escalier bay xam ascenseur ndeke bunt bi ascenseur ma ñëw foofu dugg. taxaw mënumaa dem mënuma une demi journée maa ngi fa taxaw dew ma dikku ma am benn waay ju baax rek ñëw rek laal buntu bi affaire yi ubbeeku ah ma xam ne ko fi ngay laal mu ubbeeku ah ah man it ma laal fa rek mu ubbeeku mais maa dugg ci biir bi ma duggee ci biir mënumaa dem maa dikk ah, xaw ma am beneen waay bu laalaat bu ma laaloon mu ubbeeku waat fekk ma fa ma ne ko ah sa waay dimbali ma boobu ba léegi maa ngi fii taxaw deew ma dikku ma mu ne ma foo jëm ma ne ko troisième mu ne ma fii ngay laal boobu ba léegi saa yi ma duggee ascenseur troisième laay laal de man dem sama yoon eh gars yi bi léegi xam lu mu waral dafa bari gis ngeen xam lan moo gën a garaaw ah, man li ma gën a metti samay incompréhension Dakar yëpp mooy dama dugg si nuyu sama nijaay mu ne ma ça va xool ni damaa tilim mu ne ma dugal ci toilette bi nga sangu ndeysaan ñàkk xam yàlla nañ ci yàlla musal maa dugg ci biir toilette bi fekk fa ab pot ak benn pan bu weex ma jël pot bi di root ci robinet bi di sotti ci pan bi ndox bi di dem may root di sotti ndox bi di dem may root di sotti ndox bi di eh, eh, ma am fulaay génn woowi sama nijaay ne ko tons mu ne ma ma ne ko yaa problème mu ne ma lan la ma ne ko sa pan bi baaxul lu mu ci sotti mu ngi dem mu xamal ma ni mooy chaise anglaise sama dernière incompréhension bu mu leen jox man damaa ñëw ak sama caaya ak sama faaru mbaam ñëw yàgg dox ci mbedd yi kenn musuma xool ma ne yaa problème il faut ma ma fexe def ni booy taawu nii di def du sol lu xat ak lu dang pour mu la bokk ma dem ba ci benn boutique boutique bu siiw damay bañ a def ay ay kii yooyu ma dem laajte waa ji ndax am na tubéy bu xat ak yére bu xat mu ne ma waaw mu may jox di génnee di génnee man sama xel yëpp mu ngi ci benn bu mu lonk fii mu wax waxoo ba sonn ma ne ko waa léegi bii ñaat lay jar mu ma prix bi ma ma ko rek sol ko ci saasi sol yére bi ci saasi génn waaye keroog laa am buzz ay xolam maa ko sol di génn am be noon am na nit ñu baax nag quoi ndax waajee ma woo ba ma ñëw mu ne ma sawaay ma ne ko mu ne ma lii nga sol mooy baax xale jigéen moom la sol ma toog benn ma ne kii dafa soxor ma mais ma toog quelques minutes rek gis benn xale bu jigéen sol même baa bi ma sol bàyyi leen róole baa même baa bi ma simi ci saas fii laa ko takk ñu bëgg moom est-ce que xam ngeen man tamit euh, noonu laa mel ci baa man baa bëgg naa ko de mais dafa am lu ma gënal baa sa Bob yi na tooy te ba bañ a wow noonu carrément nga def ko nag ci lu amul yàq jël Bob Marley bi natt ko nattal bopp yow fexeel ba bopp bopp bi rastaforaay nekk ci digg sër bi bopp bi parce que parce que parce nante yëpp nante yëpp 11 mai 81 la ñu gëj a gis rasta Bob Marley yi yëngu te pour dire vrai ah 35 ans et pour kon fekk nañ ñii fii kenn juddoogul et pour dire vrai am na ay xale yu jigéen yoo xam ne capable nañ li ñuy rêve ñun ñu réaliser ñu ko mooy yëngalaat rasta yi. ok ok am na solo ok eh eh eh weeru koor baa ngi ñëw weeru koor baa ngi ñëw am na jullit ñoo xam ne ak ñu ñeme xiif ñoo xam ne dañ ciy kontaan man ñeme naa xiif mais weeru koor daf may jooyloo waa parce que dama ci fàttaliku benn anecdote sam papa na ko yàlla yërëm koor gi metti woon te mbooye woon te ñu bari wooru ñu woon il paraît ñi woo 21 jours la ñu wooroon ñi 23 jours koor at booy ak boobu sam dafa woor ba 5 kër ci ngoon mu toog ci buntu kër gi yor kurusam di wérd sama yaay dem marché ndugg li mu war a taal ndogu xiif baaxul romb sam nuyu ko ne ko alaaji yaa ngi toog sam papa ni ko waaw yow dey bu ma juumul am na fu ma la xam ayca nañu dem xooli benn page de publicité te ñëwaat léegi yeggal suñu yëf publicité bus boo ci duggee comme ni ko Willy waxee dañu lay laaj sa ticket paa bi musul jënd ticket kookoo dàq burle parce que à bas âge bi muy nekk xale la daan burle xam na buur Bourlé miin na Bourlé mais boo jëndee ticket bus bi ñi fay ba pare seen billet dañ koy xotti pour bu contrôleur bi ñëwee moom habitude am mooy day dugg daal di fafar billet rek def ci poosam kenn mësu koo contrôler jour bi ñu contrôler pas bi fekk na mu for billet ba def ko ci poosam ba pare pas bi di contrôleur bi dafa yéeg rek fit bi ne tëf mais comme màggatum sàcc la daa nelaw paa bi dafa nelaw jël billet bi bi ñu xotti ba pare def ko ci poche bi di nelaw contrôleur bi contrôlé di contrôlé di contrôlé ba egsi ci paa bi yee ko père père paa bi di nelaw père père père paa bi yeewu ne ko lan la mu ne ko père sa billet lañ la laaj paa bi ne ko billet nga may yeewee laaj billet tax nga may yee mu ngi nii xoola billet baa ngi mu ngi nii am am am jël billet jël billet ayca ayca ayca tàccu leen Balla Diop bu baax a baax a baax ñu ñëw ci kaw seen bi ayca. géwël lañu piir ay géwël lañu piir ay géwël lañu ay géwël lañu ay géwël lañu ñu bokk askanu géwël nañu yëkkat seen loxo ma xool déedéet bëgguma géwël gu neef ku ci bokkul yamal xam nga ñun dañu doon ay géwél ba pare fier ci géwél kan la fi yaayam musa daanu daanu bu ngéwél sa yaay mus na daanu daanu bu ngéwél màggatum géwél léppam feem la sama yaay yee na ma 6 heures du matin baal la jógal ma ne ko mer lu xew mu ne ma dañuy dem xew kaay yóbbu yëmbal maa ngi dugal bagage yi ci oto bi ma ne ko d'accord maa ngi ko mere ndax yëmbal dem fa dawal fa rek laa bañ maire bi sangu na sañse ñu ànd génn ñu wàcc escalier yi wàcc naa ba suuf suuf sama yaay mi ngi ci kaw suñu escalier cinq marché la bàyyi li ngay def yow maa ngi ci suuf a suuf sama yaay ngi ci kaw ma nga bokk garam bu bu naan ma waa la nga defa ni déggatuma dara nga defa ni rek mu mel ni gémmiñam dañ koo tëj déggatuma dara ma wàccaat benn marche dégg bruit ma geestu seen ko muy wàcc di ñëw tar sama yaay mel ni ku toog ci ay ruu fërërërër ba yegg suuf mais liy wane casu mbàggatum géwal man pour man bu jógee danaan ndax gaañu naa waaye nangam dafa jóg ne ma baal la mbaa takku ma ma ne ko mère nañ dem mais xam nga liy marqué dëggantaan ci kër ngéwal liy marqué dëggantaan ci kër géwal lenn dong la mooy bu ñëpp dajee dafa am bis ñu toog suñu kër sama papa toog bi ñu yedd xaw ma sàcc bi fan la ko yàlla nattoo ba mu përiyee miir bi capp capp def acrobatie bu naaj li cëpp ci biir kër gi yam ci sama papa ni ko per kon tëddagu maay dem ba ci kanam paa bi ni ko kaay loo fiy wut gars yi ne sàcc la bëgg sëqatoo paa bi ne bu leen ko dóor nan génne mbëng-mbëng yeeg sabar yeeg tama yeeg cung yéeg yépp ñu teg ñu dajale lépp nekk nañu 98 personnes tiim lépp sàcc bi dong taxaw fi paa bi ne ko du mën nga fecc mu ne ko père man kay mën naa dem gaynde ñu ne ko acca boobu temps yuusa moo xewoon caratatat gun guus caratatas gun guus cagut gu cas gun guus re e e re la paa bi yem ñu commencé huit heures suba caratatat gun guus ah caratatat gun guus cagut gu cas gun guus re sàcc nga taxaw ba tey caratatat gun guus ah caratatat gun guus gun guus re fa lañ ko téye huit ci suba ba dix neuf heures ñooñu dem noppalu ji ñu xëyoon dem liggéeyi wàcc ñëw téye sàcc ba ba tey ma nga taxaw caracacat gun guus caracacat gun guus cagut ku cas gun guus re ay waay caracacat gun guus ah caracacat gun guus cagut ku cas gun guus re ñu téye ko fa ba vingt trois heures booy yi demoon football yi ñëw sangu ñëw jël enchaîné ak sàcc bi caracacat gun guus caracacat gun guus cagut ku cas gun guus re ñu téye fa sàcc bi une semaine yàlla mu euh, une semaine la suñu sàcc la ñu téye ko fa une semaine paa bi ñëw ni tëral leen sabar yi tëral nañ sabar yeeg def lépp ba tey sàcc ba fam taxaw ma nga naan cara cacat gun duus cara cacat gun duus cagut ku cas gun duus re paa bi dem wooyu médecin yi ñu ñëw defal nañ ko tension mètre rek lu nekk ñu ngi koy xool ba tey sàcc ba ma nga aj ba di naan cara ca gun duus cara cacat gun duus cagut ku cas gun duus re médecin bi ne kii dee na nañ leen ko yóbbu suuli ñu jàpp sàcc bi war ko yóbbu ñu ne dañ koy sang ba pare ñu yóbbu ko ci jumaa ji sang nañ benn parti bi ma nga tëdd naan caratatat gun guus caratatat gun guus tegut ku tes gun guus re ñu sang ba pare defal ko perkaal ba mu mat lëmas ko ba pare dugal ko ci biir corbillard bi ñu ngay wiiwoo jëm yoof sàcc baa ngi ci biir corbillard bi ci biir perkaal bi naan caratatat gun guus caratatat gun guus cagut ku cas gun guus re mu ñëw tiim pax mi gas nañ ba mu xóot tëral sàcc bi ci pax mi bañ ñee jàpp dugal ci biir ba suul suulaat ba tey sàcc baa ngi ci biir pax mi naan ca caratatat gun guus ca gun guus màggatum géwal mat naa ba cim réew xam ngeen lu tax sama maam nee na lii maa ci man pexe ñu ne ko looy def ak màggataayam mu ñëw ba pax mi dugalaat loxo sàcc bi suul ba mu rafet daan ni ko caratatat gon góos caratatat gon góos cagoto cax gén gi caax gén gi cagin looloo ko fa téye moo tax damay continuer ci ngewal ay géwél ay géwél lañu ay géwél lañu ay loo doon ay ca Balla Diop man maay géwél bu mag bi maay saraxulee géwél bi ay ca dafa wax ni euh, dafa wax ni ay géwél lañ sama xel dem ci géwél yi sama xel dafa dem ci géwél yi non paa bi dafay sukkuraat ancien géwél la te baj géwél la woon xaw ma baj géwél fan la dañ maa nettali rek ma leen nettali muy sukkuraat doom yi tiim kook sët yéeg ñëpp naan ko papa tuddeel yàlla naan ko papa mu naan e tawra ba eh. yàlla mu naan pàccee ay waay pàccee pàccee naan rakit léegi léegi damay laajte damay laajte est léegi est-ce que léegi amatina ay ànd yu sincère moo xam muy amitié moo xam muy couple damay laajte est-ce léegi est-ce que ànd yu sincère amatina parce que buur bi buur bi dafa am dagam bi buur bi amee dag ñu koy jaxase mook dag bi naan ko dag bi buggu la mais buur bi nee na moom tontu na leen ngeen ni leen bëgg buur buur bëgg laa ko gën loolu olof njaay ko wax buur bi ne leen moo bëgg dag bi buñ ko jaxaseeg dag bi mais comme seytaane waxul dëgg mais yàq na xel buur bi ne day seetlu dag bi buur bi nag tarkal la dafa am soxna soo xam ni bu la rombee yow ba nuyu la yow soxna si bu la rombee ba nuyu la fii la taxaw nuyu la yow bu demee ba fii wangi waa oh. ndake dag bi dafa teg dafa teg bëtam ci jabaru buur bi buur bi woo ko mu ñëw di ko natt amitié wum ak ki nga xam ne mooy dag bi ak li koy wax ne ko yaay sama bëkk néeg yaay sama dag mais terewul yaay sama xarit sama soxna laa tëj fii ci biir néeg bi damay dem guerre yi ni bu ma defee ñetti fan maanaam soixante-douze heures su ma ñëwul lew na la sa soxna la dag bi ne ko hë buur mu ne ko damay dem su ma ñëwul 72 heures dee naa ñetti fan dee naa te yaa ma gën a jege yaa gën a yey soxna si ci man jël ko sa soxna la buur bi yëg ci fas wi takk jug labbali fas wi ànd ak ñamoor àndal dem géeri bàyyeeg caabi ji daggi te jabaram ci néeg bi buur bi daw ba yegg lu tolloog fii ak ay 500 mètres rek hët pund ba wuri buur yaakaar ni ñi muy géeral ñoo ñëw pënd ba wëri wëri wëri buur ne waaw nu mu demee nii wëlbatiku ak ñam àndaloon pour ñu war a song ñuy guerre mu xàmmee bi euh, bi poseer bi puus mu xàmmee ba gis dag wi bi dag wi ñëwee buur ne ko lan mu ne ko buur da ngaa ci caabi ji nga ma Eh eh, eh eh eh eh eh xaarul xaarul ñetti fan ubbi na bu yàgg moom ubbi na bu yàgg moom xaarul ñetti fan xel la loolu xel la xel xel lu ci ne eh, xeemeem am na ci nit ñi xel la grand bi tox yàmba suñu koñ moo tax yàmba baaxul ah, ah, ah, yàmba baaxul grand bi koy tox suñuy koñ dafa siig siig mooy ku am envie ci tuux ñi tuux xam nañ siig bi grand bi siigee ñëw fekk ñu toog mu ne nañ ko jëndal yàmba ñun xamuñu fi ñu koy jaaye mais ñun comme dañoo nekk ay xale am fit ñu engagé xaalis bi dem bi ñu demee fekk ay neefere fas xam ngeen neefere yi ñu fekk ko mu rafet lool xam nga fas bu lekkee dugub ak yooyu bu neeferee bu yàggee mën naa woo ba nduróog ñax mais doomu dugub yi mën na faa des ñu for ci daal di koy defal ci kayit ñëw jox grand bi mais comme dafa sii xàmmewul xoolul mu tas ko tàmbalee ah eh fii am na ay tuxkat de ay eh, ca eh, yéen eh bu fi alkaati ñëwoon dina jàpp ba mu dëgëree ne daal di laxas benn mongol mu dëgër xëcc dafa xëcc xëcc tiir mu ku siig xëcc lu yàgg fuu daal di ëf daan <laughs> xale bii di bëgg ñëw yëmbal la dëkk c'est un fils de la banlieue comme man ah xale bii dama fier ci moom dama kontaan ci moom général Kayré tàccu leen général Kayré. kan la fi papa mos a teg gàcce yow sam papa dinoom liggéey ba liggéeyatul nu ngi koy waxee si français kuy liggéey ba liggéeyatoo jërë ngeen jëf doom kam bu toogee day am méewu day doxantu. sam papa day doxantu ba romb Senelec gis rang bi gudd lool mu ñëw ba si ku mu gis rang bi nekk sama doom la moo xew fii mu ne ko père fii day fay courant sam papa taxaw génnee téléphone am man la woo génne foo nekk ma ne ko maa ana Aliou ma ne ko mi ngi nii ana Géné mi ana Aïssa Ndiaye ma ne ko ana Thiam ma ne ko mi ngi ana Endo ma ne ko mi ngi nii ana Aw ma ne ko mi ngi nii ana Fallou ma ne ko mi ngi nii ana Asak Elage ma ne ko mi ana Soxna ma ne ko mi ngi ne naa ma ana seen ma ne ko mi ngi nii ana Fatima mi ngi nii ana El Hadj ma ne ko mi nii ana Boje ma ne ko mi ngi nii papa mi ngi nii ñu ngi nii papa papa ñoom ñëpp a ngi fi lan moo xew sama papa ne bàyyi leen li ngay def ngeen fekk mas na lekk ñun ñoo ñëw papa ne topp sama ginnaaw sama papa di ran di ñëw di di ñëw ba egg si gisee bi. waa ji nekk indil facture mu ne ko jaru ko dépense kër gi maa koy joxe ñii ñëpp samay njaboot la <coughs> sama mbaax ne waa ji konteel xaalis bi nga jox ma ko waa ne ko père fii nii dañuy fay courant sama mbaax ne damaa ran ba egg si bul indi benn problème dañuy fay courant ran ba egg konteel ma sama xaalis jox ma sama papa indi fa coow lu rëy na gars yi ñuy wax électricité sama papa yaakaar ni courant la ni fay comme man comme man comprendre na ndeysaan ndeysaan amul ku defal nank amul lakk kati yàpp amu fi lakk kati yàpp mu saafal ma mbay mi comme man comprendre naa sama ma woo papa ne ko papa garaaw nan dem kër ga ba nuy ñëw dinoo baat ñu jël ñaari kaar di ñibbi <laughs> ba nuy ñibbi sama am na kersa sama papa am na kersa mënul jube kër ga mu ne ma seen kaa jëlal ma oto kolobaan man am ku ma seeti ñu wàcc buntu bi gin sama taxaw ngir ma jëlal ko oto kolobaan déglu sama papa de ndeysaan kolobaan la jëm oto yaa ngay taxaw mairie Colobane mairie Colobane mairie Colobane sama papa ngi taxaw demut man sama problème lan moo tax paa bi oto bu ñëw naan mairie Colobane mairie Colobane sama papa ngi taxaw 18 am oto bi dafa taxaw ne mairie Colobane sama papa fii la emprunté bi taxaw ci porte bi ne moom moo yeb naan paa yi Colobane paa yi Colobane paa yi Colobane paa yi Colobane waaye mairie dañoo moom Colobane xanaa ñun dem soo ba léegi mairie Colobane ñun paa yi xanaa si noonu sama papa jël temps am yëpp oto ba mu des benn place mu yëpp si benn xale bi jigéen moom mu jee doon emprunté bi ndeysaan comme xale bi jigéen fu mu jëm soriwul mu jox emprunté bi cent franc fukk ko juróom la diggante fu mu yéeg ak fu mu jëm emprunté war ko wecc juróom emprunté ko maa lay jox juróom ku yéeg naa ko defuma ko su ma manqué woon juróom doo ma ko may wecci ma sama juróom wax ji déranger emprunté emprunté si appayage bi la taxaw ut weccet jox ku jigéen ki juróomam mu ne ko am jàmm am de nii rek ngeen di def empreinte bi daal koy xool daal di soxna si comme wecc naa la na wax ji jeex soxna si jug ne day door empreinte empreinte daal di ko yéexee nakkat yoo da ngaa fuu ku jigéen na nga ko jigéen kenn du ko man mu jàngul sax xam naa ne jigéen kenn du waaye boo demee da ngaa fuu rek man da ngaa fol ajab si noonu non bis boobu si la ku jigéen ki jàppal emprunté bi di xeex ak moom sama papa ne day bis boobu laa découvrir ni sama papa sàcc la ndeysaan yéen a ngi ree waaye maa ngi gis muy génne sama yére yi nii dugalal yére damay kaf rek <laughs> ak aka sañ ma ñëw mu ne utal foo dëkki génnal kër gi ñu ñëw toog ma ne ko papa lu ñuy wax alal jàmbur ba fa nit ki lu la gën a soxla ba ka moom de roy si booy bi tombeeg juste douze treize yu commencé bolom leel ba taxaw ma naan ko papa royal si kii mu naa ma Zidane bi lan laay roy si moom waaye Sénégal bis boobu laa découvrir ni sénégalais balaa mu laa wor nga am si moom yaakaar maa ngi bàyyi la sama papa yëpp nekk papa seetaanal booy bi sa mbaax bàyyi léppam toog di seetaan ngir xam lan la ko booy war a jàngal nekk koo gën a ëppal ñëpp ma nga taxaw si émission bi jël ma fii eh, maa ngi jël ma fii yow mu jékki-jékki ñu envoyé si téléphone am ne que jeudi sa invité du jaaj jekko la mu xam naa ko mooy way si làmb mu naa baale see saale ji talaale ñu envoyé waat ko message ne duñ jaay jekko mooy président amateur mu ne may leen ma clip. jërë ngeen jëf kontaan naa jërë ngeen jëf aja gaay ayca mu ngi noonu lii nag spectacle la bokkut la ak ak ba tey événement waaye dañoo am événement le 21 avril ñen ñoo ko am waa kër gi fan la am ca foofu ca Kaolack euh, événement boobu nag ñu ngi koy tàmm di am ndax concert la boo xam ne dañ koy may waa Kaolack yëpp yëpp yëpp exemple lañ ci biir réew mi parce que fi ñu jógee euh, fàttewuñ ko benn yoon waa kër gi ayca kilifa lan mooy xew euh, le 21 foofu ci Kaolack. waaye concert xamante ni ça fait. bi mooy nekk euh, troisième année bi ñu ko initié ak léegi parce que Kaolack dafa nekk lu am importance ci suñu dund parce que bu ñu Kaolack rayoon ñun kenn duñu xam mais Kaolack daf ñu dundal ba tax tey àdduna xam ñu ñu nag Kaolack kemb ba caaf maanaam euh, nos débuts c'était très difficile mm-hmm. mais les Kaolackois ont cru en nous dañ ñu gëm nañu ñu yéen la gëmloo ñu loolu nañu àdduna bu ngeen ko yëngalul du yëngu ñu nag ñoom bi ñu lay Diack di dóor ñu ñuy fompal suñu rongoñ ñu nag ñoom bi ñuy tëj kaso ñu ñuy massawu di ñu seetsi di ñu jox ay bool dof ñu nag Kaolack ba tey kër gi nekk état euh, kër gi jóge ci baraak jóge ci case dem ci terrasse nekk étage ba tey kër gi nekk gratte-ciel commencé di teg ay kii donc ñu ne lu mu métti métti métti métti puisque ñaan bu demee ba nangu rek day sonal borom ak suñu calendrier ak suñu ay tournée day gëj di raar ñuy dóor Kaolack donc dinañ jàpp léegi lu mu bon bon benn date ci mois d'avril may ci Kaolack waa yëpp génn mën a seetaan concert wu deux heures de temps ak live band ak le groupe kër gi ba pare seqatuñoo ak ñoom par exemple lu ci demee ni di leen jaay concert parce que liñ naan lu yëngu la ko yëngal moo ko ëpp doole tey jii lépp ñoom la donc il faut que ñu leen di rendre grace am na solo ayca kili ba tey kilifa dañuy ñëwaat ci yow un mot ci Abba Show. waaw mais euh, euh, di profito di. Euh, encourager mes jeunes frères comédiens mm. les humoristes humoristes ils sont très forts mooy li ma doon wax quoi lii bu ma amul woon chance ñëw nii nga invité ma du ma xam ni am na fi parce que amuñu fu ñu exprimer woo amuñu ay moyens d'accompagnement c'est des acteurs culturels mais ils sont dans la comédie ils sont dans l'humour il faut que état yi gersu leen il faut que ñu fulal leen ñàkkuñu fayda ah c'est juste des comédiens ci lii la ñu mën a exprimer woo et puis euh, tout à l'heure euh, euh, xoolal euh, kii lancé ci ci humour mu lancé ci message xale yi politiciens yi nekk di sàcc mm, mm, mm, di leen sacrifier non il faut appeler ça ça li mu wax am na solo merci encore une fois kilifa ci invitation bi ak accepté gi nga ko accepté maa ngi lay kontaane bu baax waaye ñun tamit euh, am nañ ci suñu un mot un mot à dire parce que ñun tamit ay responsable lañ ay parent lañ te ay porteurs de voix lañ mani xale yi nekkatuñu ci sécurité ñun parents yi suñu xel dalatul xale yi yow papa ji sax boo ñëwee di foo xale bi mu ngi lay moytu di eskive xalaat ni mën nga ko jël yóbbu ko donc vraiment sàmmal leen ñu réew mi sàmmal sécurité réew mi te xale yi ñooy avenir réew mi ëllëg te yéen politique yi benn conseil bi ma leen di jox mooy ngeen daw ci gaalu xaj gi ñu leen di sédd fexe leen ba buñ leen fa gis ngeen fay lekk mooy accident dafa am ku wérul toog fi accident bi am ay politiciens ñoo accidenté ñëpp faatu ba mu des kenn ku faatuwul ci kanamu ki wérul ki kooku faatuwul politique euh, ki nga xam dafa wérul ñëw fekk leen ñoom ñëpp ñu faatu mu gis leen ni ay politiciens lañ waajee ngi naan ko waa kay jël na ñëpp suul leen ñëw waaji naan ko yow day bis bu ma toogee li nga bëgg yëpp naa la ko defal dinaa la faj ba nga wér ndax vraiment def nga lu rafet mu jël waa ji suul di police ñëwee laaj ko dafa ni leen ñëpp deewoon nañ ma suul leen mais bi ñu deewulee bi ñëpp deewee am na ku deewul kooku bi ma ñëwee mu ngi naan ma yow de bu ma toogee dinaa la kii waaye comme waxu politicien la rek xam naa deena bu yàgg ma jël ko moom it suul donc éviter leen loolu éviter leen loolu donc yéen tamit yéen tamit et vous êtes et vous êtes nos tuteurs yéen ay yéenay suñu ay kilifa donc vraiment euh, wan leen ñu yoon bi nga xam ne ñun xale yi yoon boobu la ñu war a jaar et mu rafet lool et vraiment président euh, yow lu ñu dénk réew mi euh, ñu ngi lay ñaanal yéen bi oyof ci yow toll toll toll waaye suñu doom yi nga xam ni ñoom la ñuy sàcc dimbali ñu rek nga wax ci ba loolu jeex ci biir réew mi sama xarit bi dafa réew accidenté ñu dagg ñaari loxo yi. amatu ko mais comme dafa réew xam naa ko ma ne ko booy lekk mën nañu laa sexal mais ah. boo duggee douze ba def say besoin yow ba pare nooy def raxasu raxasu boo nee laa bu olof la mais dañ ñaan dafa ñaaw nooy def ba raxasu mu ne ma kaay kaay xool ah kon ba tey comme damaa dañ kumpa ma ñëw xool mu toog ci sees anglaise bi teg satala ndox bi fii amul loxo de bu leen fàtte mu def ay besoin ba pare ma toog di xool yenn saay ma snap yenn saay ma whatsapp bi mu paree ndekete yàlla lu mu la xañ rek am na lum la may moo tax na ku ne gëm boppam na ku ne xam ni àdduna bu yoon jeexul waaxusul du jeex fu waaw lu juba jeexul juga fa satala baa ngi nii mu pare li ma jaaxal mooy bu pare nu muy def ba raxasu bopp satala bi la tël ak tànkam satala bi tëb mu wàcc siis anglaise bi sukk oomam xam naa film ngeen koy teg satala bi ñëw mu seex satala bi naan lu bari teggi om bi sëgg eh eh eh eh eh eh eh eh ngeen yaakaar ngeen yaakaar ngeen yaakaar ngeen yaakaar ni ngeen yaakaar ni foofu lay yem ngeen yaakaar ni foofu lay yem e mooy du set nii la ko ayca ayca lii mooy ayca ayca ayca DJ ayca may leen ma ma ñëw may leen ma ma ñëw parce que parce que li gën a tàng li gën a tàng Abba Show chaque mois nii lay demee li gën a tàng te gën a metti dañ koy denc pour la fin chaque mois Abba Show noonu lay demee ayca maa ngi kontaan bu baax a baax ci yéen public bi yéen ñi ñëw toog tàccu leen seen bopp bu baax a baax a baax ngeen tàccuwaatal ma ngeen tàccuwaatal ma suma invité kilifa bu baax a baax a baax tàccu leen ma DJ Medzo bu baax a baax a baax waaye tàccu leen waaye tàccu leen eh, les humoristes ak eh, toute l'équipe de la 2STV ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci caméra yi ngeen tàccu leen léegi nag la nuit du rire niñ ko tàmmee def chaque année la nuit du rire cette fois-ci foofu ca Cissesse Lamine Dia ak Youssou mbay Paccax ak ñoom jo ñoom Laay ak ñoom Baylaat ñu ngi ciy def liggéey bu am solo boo xam ni li nga xam ni mooy laa nuit du rire comme ni ñu leen ko tàmbalee nuit boo xam ni c'est cent pour cent riir Willy ak Balla ak général di ci liggéey liggéey boo xam ni et ñoom Ibou Ndim ñoom ñëpp dañuy ñëwaat ci biir mu nekk tuq sa bañ goo xam ni sañ ba day réer ci luy baax lañ koy def ma ñëw ma ñëw fii dafa désorganisé bi ñu commencé ba tey organisation amul léegi dafay baax bu ñuy def yu mel nii bu ñu ubbeewul ak ñaan ñu tëj ko ak ay kilifa yoo xam ni dañuy ñaanal surtout bu ñu invité kilifa mais Abba Show mois bu nekk weer wu nekk ak kiñ ci war a invité moo xam activité boo mënti am di nga ñëw ci Abba Show dinañu waxtaan ci oto bi waxtaan bu am solo bu ñu ñëwee nga fekke ambiance bi fekke show parce que ay xale lañ ba pare lii culture la boo xam ne dafa bokk ci lii defar réew riir dafa baax ci réew day dindi stress day dindi ay tension ak yooyu yëpp dimbal leen ñu rek ngàll ah day tax doo cardiaque day tax doo cardiaque hmm? ay ca ngeen ñëw jàpp ci combat bi ay xale lañ yoo xam ne mënoon nañu dem defi leneen wala ñu xooli leneen mais nekk ñu dul ñun sacrifier suñu bopp ñëw pour vous faire rire yéen pour yéen ngeen di kontaan donc vraiment ñëw leen jàpp ci suñu komba te xam dina ci am solo lool sëriñ bi day dugg ñaanal leen Abba Show wax leen ba weer bi di ñëw jërë ngeen jëf merci beaucoup à la 2STV merci ci yéen ñi toog seen kër di ñu seetaan ñëpp sëriñ bee ngi dugg ñaanal leen ñi toog ak yéen ñi nekk seen kër sëriñ bi tàccu leen ko bu baax sëñ bi dafa bi ay ñebal yu bari defar leen toogaay gi acca àdduna kenn xamul jërë ngeen bi expliquez nous soxna si del ree tuuti ñeme la del ree ok bi nee na àdduna kenn xamul uh-huh. sëñ bi expliquez nous. sëñ bi nee na. àdduna kenn xamul. sëñ bi expliquez nous. sëñ bi nee na. àdduna wóoratul. sëñ bi expliquez nous. sëñ bi nee na àdduna kenn xamul sëñ bi expliqué ñu waaw mu expliqué leen ndeysaan dégg leen loolu mbokk lu jëf waxul waaye di jàmbat sëñ bi nee ngeen déglu mu expliqué leen sëñ bi loo teg waaw ni na waaw nuyu ma kenn ma kenn fay déggal sëñ bi ci fullaam sëñ bi ci ñàkk faydaam sëñ bi ci bonam nee nuyuwul kenn te bu ko kenn fay te ma ñàkk sama ndey si sëñ bee leen da koy diggaale ak ba mu saf-saf mu lee waaw waaw ñoo ne nag waaw lépp loo xam ne génn na fi ci ay baat rek waaw man mii maa ko wax te maa tay déggal loolu sëñ bi ne kàddu yu ngeen fi dégg rek moom mii sëñ bant mu tëdd doomu alaaji xob moo ko wax te moo tay ba tayaatoo eh? waaw ku ci am lenn loo ci yëkkati laaju mu la ko nga képp ndeysaan ndeysaan ndeysaan déggal loolu déggal loolu ne ku ci am loo yëkkati rek laaju la na nga képp li nga moom te xanaa war ngeen foowe war ngeen foowe yéen ñëpp bi ngeen di ndaw catégorie keppal même ça keppal nous désirons keppal yéen ji kepp leen sëñ bi keppatikul ayca waaw ah. ah. waaw dégg sëñ bi ne doo wax mu leer tuuti yaa ngi ah waaw ah, sëñ bi ne jàng yi nag na mu daan demee rek lay deme te nag day teel a jàngi daaw yi ay saaga ndaya ko yàqoon ren ku fi osé di saaga nday man maa jógoon sama bopp ubbit sa ah lan la lan la wàccal wàccal wàccal yaa ngi yëg wàccal ok mm-hmm. sëñ bi demal. Eh? waaw. gétt gi. waaw. du pour kenn ñu nangu rek. <laughs> ndeysaan ndeysaan <laughs> déggal loolu sëñ bi dey ñii dañuy yar ginaar ñii di yari laadum ñii di yari xar sëñ bi jëblu ci gétt yar xale yi jigéen yu baa aka saay saay yor gétt goo xam ne nag yéen ñi toog fii leen yéen nag ci yéene sëñ bi nu ma bu may noonu laay def ba procuré wu ci xale yi jigéen ñi joxe cent mille francs waaw ñu jox la jéeg mu ne fa tripo ba mba ndeysaan déggal ah waaw nga loolu ne yow mi nga xam ni borom alal nga borom daraja nga nga jël ñaar fukki junni maanaam cent ni ko sëñ bi am ci sa jéeg ji laa bëgg ñëwal nee dina la jox jéegu tëri boor ba boor nga yeewoo yendoo njogonaloo fanaanoo delloo na ngeen delloo nag amul never mind sëñ bee leen gën a bàkk perek surtout sëñ bi fee yecc de na nii delloo nee na nii waaw joxe nga cinquante mille waaw ñu jox la jéeg tiri. tiri du port tiri tiri rek. waaw defe naa noo. waaw yeewoo yeewoo yendoo delloo delloo déggal <laughs> jàpp lay waxal de ñaar fukki junni ñëw xaaj ko ni sëñ am tiri boor ba boor tiri rek ngay am nee rawatina da ngay fanaanoo yeewoo yendoo delloo doo njëgoon a la nay teel a leer waaw kay. nii waaw. année ba joxe vingt mille waaw. jox la taay fii taay fii nga fanaanu waaw waaw yeewoo ndeysaan déggal taay fii nag taay fii nag taay fii nag dañ ciy am préférence dañ ci am préférence ndax taay fii nii am na ñoo xam ni taay fin lanu sëñ bi du joxe yooyu moom gétt gu baax leer ndax taay fiin boo solee baa baa bi seere la bu la yu mbaxee dootoo taay fiin baa bi seere la ngay dox sol korop kop korop top wala korop kop sa jumbax ne ci biti nga yëkkati sa loxo sa poqotaan di feeñ ndax sëñ bi daa bëgg poqotaan nee na ngay dox jub si si moom nee ngay dégager lu mat sëkk nee na ñooñu la pare pour jox leen ko ay waay ay waay man la de baal leen ma de baal leen ma dama fàtte ni man dama fàtte ni moom taay fiin da koy daaneel bal ma de bal leen ma léegi defal ndànk xaaral xaaral ma lijjanti eh da def ndànk ma lijjanti sa mbir fi mu ne nii ngeen baal ma rek fi mu ne nii leen dong nga tax daanu yu jeex leen dong nga ci mën dara ay phone dimbali leen ma tuñu disponible dimbali leen ma dimbali leen ay waay soxna si doo ma baal rek nga ñëw fóonal ma dimbali ma rek dimbali ma rek fóonal ma ko dimbali ma du ngeen ma baal ñëw dimbali ma fóonal ah waaw bi xam nga lan la lii da nga ciy paye de parce que kii caga la munul bis mu mu daanu bu dee loolu ma ne waa waa waa waa dafa yomb torop lii dafa yomb lool bu dee ay daanu ngay jaay ay fóon sëñ bee la gën a soxla fóon te laajul fóon man maa la ko gën a soxla sëñ bi wéyalal ñu dem ñu ngi woon ci taay fii yow ku joxe quinze mille lu muy am waaw ñu jox la taay fin waaw nga fanaanoo rek ah, rek dégg nga quinze mille ku ko joxe taay fin ngay am te da fanaanoo delloo jarul yeewoo ñun dinañ ko jël si suñu bopp sax ci topp ah. waaw on ne ba joxe cinq mille cinq la sax loolu moom rek jox la ah, dégg nga de yow mi ngottu jàpp nga ni junni nga indi ñëwal ma ñàkk sama ndey sëñ bi saabu la lay jox loo xam def booy sangu nga sangu booy nga waaw loolu ngeen ñu procuré wo sëñ bi am nga mbir daa am sëñ bi yàlla def koo may baat bu neex boo xam ni war na leen cee mën a baaxe laataa ñuy tëj jàng yi di ñaan ay ca sëñ bi dafa am lu tàj ci yow hmm, waaw ayca am hmm. ndeysaan dégg loolu ndeysaan eh, waay ndeysaan waaw waaw loolu saabu kuréel. dèjà boo demee douze war na laa sonal. <laughs> léegi kese naxul bëñ. Ah, loolu leer nañu. waxi kese naxul kenn. loolu leer na la. li may wax neex na leen saf na leen na leen. waaw. yéen a ma bëgg moo tax leen di bëggal. dèjà. su ma juumee. Ah. bu leen ma baal mukk bu kenn baal ndeysaan su ma leen tooñee boo tooñee yaa tey wallaay yaa tey ña sëñ bi famille. ndeysaan déggal loolu waaye ku sopp sëñ bi famille ne def nii waaye ku sopp sëñ bi famille ne def nii waaye ku sopp sëñ bi famille ne indi addiye waaye hmm? d'accord addiyey foon wala sa yoon nekku ci sëñ bi ñu ñaan waaw kay nañ leen tàllal loxo yi ñu ñëpp ñu ñaan dëppal say loxo yow dëppal sa gàttaay eh, jëf na nga jóg ci kaw. bul déranger. bul déranger. na nga jóg ci kaw. bul déranger. bul déranger. bul déranger. bul déranger. bul déranger. ndeysaan. ndaanaan nga sëñ bi ndaanaan nga. ndaanaan nga ba mu tëdd ndaanaan nga. ki la jongal ki ko jongal ndaanaan la. ndaanaan nga bant bu tëdd ndaanaan nga nga bant bu sëñ bi ndaanaan nga ki la jongal ki ko jongal ndaanaan nga sëñ bi ndaanaan nga ndaanaan nga bant bu tëdd ndaanaan nga ki jongal ki ko jongal ndaanaan la kay saan loolu